bu doon cin dañu wax ne da koo teg ñetti was cin loo xam ñetti tànk la am tànk mu njëkk almahamalul al ilmu naafi beneen tànk alamalu saalih beneen tànk al adabul mardi ilmu naafi nag mooy xam-xam boo xam ne nii dana am njariñ xam-xam am njariñ nag mooy lépp loo xam ne doomu aadama mën na koo jariñoo te lu naqali sunu borom du ca nekk loolu xam gi dafay doon lu bokk ci yoon wi moo tax xeeti xam-xam yëpp nga xam war nañ cee géeju loolu bokk ci bu ko def alamalu saalih mooy jëf ju baax mooy xeeti jaamu yàlla yi nga xam dañ koo farataal ci ñun waaye itam yi coobare yi nga xam nit ki moo koy coobare du ko defal boppam teg ca nag al adabul mardi mooy teggin yoo xam ne nii mooy ni ñuy jëflante ak doomu aadama day mel ni boo ko doon tënk ci waxinu jamono nga wax xam-xam ak xam nooy nekkee ak xam nooy jëflante noonu mooy mooy li sëñ bi tënk yoonu murid mooy nga xam li nga war a xam ba man caa teg jëf ji nga war a jëf nga teg ko ci xam-xam waaye nag jëf ak xam-xam ba ànd ak teggin du am solo moo tax teggin nag mooy li nga xam mooy taaral jëf ci wala nga wax boog al iman wal islaam wal ihsaan iman mooy pas-pas bi islaam mooy jëf yi ngay jëf ihsaan nag mooy rafet rafetal ngay rafet jëf yi ngay jëf adabul mardi nag lu yaatu la xeetu jëflante yi doomu jëf jëflante yëpp daf ciy dugg waaye xeetu nekkin doomu aadama yëpp day duggaat ci biir mu am ci rek benn pàcc boo xam ne nii moom la bokk yi bëgg xëy nañu sànni kàddu mu jëm ci pàcc bi nga xam ne nii nu ñuy jëflanteeg mbedd mi nga xam ne nii ñëpp moo ko bokk muy mbedd mi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk yan teggin la laaj ci ñun ci jëflante gi ak yan doxalin mooy doxalin muñ ko tegee muñ ko doxee dana tëppoog ay teggin yi ñu gërëm mbedd na xam ngeen ne bokk na ci yi gën a yitteel lislaam mbedd mi ñëpp bokk ci la bokk boo ñëwee ci xaddis yéen bi jàng ne gëm yàlla juróom-ñaar fukki pàcc la ak nangam daal ne ba ci gën a kawe nag mooy laa ilaha illallah mooy ñaari baati seere yi <coughs> waaye nee nag maanaam fekk luy lore ci kaw yoon nga teggi ko ba du lor nit ñi loolu ci pàcc gëm la bokk waxul nag fu mu ca teg fu mu ca fu mu nekk man naa nekk ñaareelu barab bi wala mu nekk ñetteelu place wala mu nekk sax fu mu moo xam fa muy toll waaye daal ci pàcc gëm yàlla ci la bokk bu ñu nee bay lënkale na diggante gëm yàlla ñaari baati seede yi ak li ñuy jëfandikoo mbedd kon day teg tegtal mbedd am na wàcc waay bu am solo ci diine am ko ci nag ci njàngaleem lislaam yéen de sax mas naa wax nañ mas naa ñaari barab ñaari bàmmeel daal di taxaw ne dañu ne ñu ngi leen di buggal daal di mu yàgg moom ñu leen di buggale sax lu tuuti lu tuuti la moom yàgg mu ne ah, lu mag la ndax kenn ki daan faj aajoom ci mbedd ci yoon fi nit ñi jaar di ca bàyyi xel mooy nga tuur ndox ci mbedd wala nga faj ci sa aajo ci mbedd mi fa nit ñee jaar wala nga dem ker ga nit ñay féexloo nga def fa lu mel noonu mu ne loolu dana waral wala kenn ki daan tuur ndox te du sutul yooyu yëpp di xeet yoo xam ne ni day tegtal ne lislaam jox na wàccuwaay bu mag a mag mbedd mi nga xam ne ñëpp moom lañ bokk. sëñ bi boo demee ci naxjul xalaay laaj daanaka lu mel noonu la fi xaw a jàngale te ñu koy jëfandikoo day rek li nga xam ne nii moom la lislaam santaane. mbedd nag ci teggi bokk ñu teggi ni ñu koy jëfandikoo bi ci jiitu mooy ñu fay baral di fañal di toog toog ci mbedd yéen di mas naa saxaaba yi ne leen dee leen moytu toog ci mbedd ñu ne ko mënuñ faa ñàkk bañ a toog di mu ne kon nag bu ngeen foo toogee na ngeen di sàmmoon teg teggin yi mu laaj teggin yooyu bi ci jiitu mu ne ñu ne mu ne leen bi jiitu mooy ku la romb nuyu la na ko delloom nuyoo kon jàppal ne boo toogee ci mbedd bokk na ci toog gii ni mbedd boo dee mënu faa ñàkk ma ñu fa toogee képp ku la romb la na nga ko fay nuyoo loolu nag defe naa ne léeg nga gis ñun ñuy garam place suñu mbedd yi boo leen boo ne asalaamaaleykum du la fay bokk na ci ñàkk jëfandikoo ay teggin mbedd laaj bokk na ca tam nga damm sab gis mooy maanaam bul sànni sab gis boo toogee ci mbedd bokk na ci teggin yi nga bañ a lu romb nga xool ko ak yu mel ndax lu loraa ngi ciy juddoo kon ñàkk sàmmonte teggin yu mel nonu yu bari day waral nit ñi duñ mëna a jëfandikoo bedd ndax da nga gis barab yoo xam dafa bëgg jaar ndax ña fay toog mën naa boo fa bañ lay xol wala yu mel nonu wala sax daan na leen gisee taxul nga bëgg fa jaar ba tax do fa nangoo jaar loolu ci ñak xam teggin jëfandikoo mbedd ci la bokk bokku na ci teggin jëfandikoo mbedd itam nag mooy di ko setal foo toll di ko setal mbedd yi yent bi jang hadith ne dee leen setal seen et wuuteeg am ñum tudd daan ne wutale nag ñooñu ndax ñooñu day mel ni seen ët daan taq mu ne kon yéen julit leen seetal seeni bedd ngir mën a wuuteeg ñi nga xam seen bedd ñoom dañ ko daan taqal ëtt nag ba tey day làmbaale bedd mi ci mooy barab yi nga xam ñëpp dañ koy bokk kon yooyu yëpp dafi tegtal ne kon mbedd am na wàcc ci lislaam mu ñëw suñu dëkk bu tedd bi nag di Tuubaa nga xam ne sëriñ bi daf ko waxoon ne su ñaanoon su moom na ko def na moo defal mel ne turandoom wàcc àjjana mislas mi abat mooy tubaa ab Touba jooje da gis ne nit fii jëfandikoo mbedd tal la ci ne waxtaanee ko lu am solo ñu ngi koy tàmbalee ci ni ñuy occupé mbedd yi nga xam ne tey boo bëggee cant baas dakk mbedd mi soo may ngente baas dagg mbedd mi yooyu yëpp lu ci xaw nga mën a dagg mbedd loolu ci ñàkk xam teg gi ni jëfandikoo mbedd ndax mbedd mi dëgg la ñëpp ko bokk waaye nag am na chart yu ñu ko a jëfandikoo mooy dañ fay jaar di jàll wala yu mel noonu waaye kenn waru koo dagg ba ku ñëw bëgg a jàll doo mën a jàll loolu ci ñàkk xam teggee ni jëfandikoo mbedd ci la bokk kon tam nit ñi war nañuy bàyyi lu mel noonu ndax gàllankoor la indi yu baree bari dem ak dikk bi waaye la indi yu baree bari tam ci yeneen nit ñi ni ñuy jëfandikoo mbedd mi bokk na ci ñàkk xam teggin itam mooy maanaam occupé ko jël fa place teg fa am ñoo xam duñu am sax bu xew waaye dañu jël seen place seen atelier wala yu mel noonu teg ko ci digg mbedd mi loolu tam ba tey ñàkk xam teggin yi jëfandikoo mbedd ci la bokk te muy lu tasaaroo ci biir dëkk bi kon mbedd tam du barabu liggéeyukaay waaye barab bu ñuy jaar di jàll la loolu nit ñi war ko bàyyi xel bokk na ci lu mel noonu tam ngay jël sa ndox ma nga soxlaatul wala mbalit mi nga soxlaatul ñëw jal ko ci mbedd wala nga tuur ko ci mbedd mi loolu tam wuti naag li yéen di jàngale woon nañu jëflante noonu ak mbedd kon képp koo xam ne ni da ngaa defar sa buntu kër ba mu baax defar sa kër ba mu baax nga defal pas de porte mooy benn mètre wala ñaari mètre yi nga xam moom nga moom ci mbedd bi nga defar ko ba mu digg mbedd bi nag nga def ko sën loo loo taqale tuur fa ndox moo jëfandikoo tuur ko fa ba kenn dootu fa mën a jaar loolu ci ñàkk xam ni ñuy jëfandikoo mbedd ci la bokk kon yooyu yenn la ci nga xam war nañ ko bàyyi xel gën a bàyyi xel ci dëkk bi li ci des nag mooy maanaam mbedd mu yaatu nga sakku def ko kër wala yu mel loolu tam bokk ci li ñuy seetlu ci dëkk bi di Touba mooy mbeddum vingt mètres wala mbeddum trente nga gis dem bam yag nga jaar ci bam yag gis ñu wàññi ko wàññi fi 10 mètres wàññi fi 10 mètres ci def ko kër wala sa nga dem yag gis ñu sak ko daa waroon sar ñu sak ko def ko kër loolu lepp tektal la ci ni ya xamoo ni nga war jëf jëfandikoo ndax sak nga war sakk googu yaa ngi ko dem ak dik bu nit ñi kon yoy yenn la ci nga xam nañ koy sétlu ci mbeddi ci tegg ni ñu war lañ di def seetal gi waxon nañ ko léegi loolu nak xeyna mom wa tuba jambar lañ ci ndax ñaari alxamis ci ngoon joorom ju jot boo génnee ci tàkkusaan da nga gis soxna yi def ay équipe di toppatoo mbedd yi di ko di ko setal loolu moom jàmbaar lañ ci lool waaye noonu ñu koy setal léeg-léeg benn benn dem noonu lañ mën a taqale kon setal googu moom ñu gën cee góorgóorlu soññ ci ñëpp ñu xam ne bokk na ci teggin yu baax yi nga xam ne nii dañ koy jëfandikoo mbedd waaye tam di ko taaral ci waaru jëmbat ay garab ndax xam ngeen ne mbedd boo demee ci dëkk la lay njëkk frappé mooy mbedd mi la ngay njëkk gis moy mbedd mi am dëkk yi fonk seen bopp lool lool da melni seen seeni mbedd sax la ñuy gën fonk ci seen biiri kër manam nañuy taarale mbedd yi ci jëmbat fay garab tafas ko ba di ko setal day mel ne seen gëddu du benn ndax mbedd mom moy li nga xam boko gisé mu rafet baax rek da nga dal japp ñi fi dëkk mom nit ñu mel nañ wara mel lañ soo fa diggee itam dëkk gis mbedd ya melu na mu wara mel da nga japp ñi fa dëkk meluñ nañ wara mel kon sétal gi ak taaral gi ko man jëmbat fay garab ak di ko toppatoo ak yu mel noonu ba tey ci la bokk kon daal yooyu yenn la ci yi nga xam ne ni bokk na ci teggin yi nga xam ne si na ko jëflante ak mbedd ñu seetlu nag ne bu dee ci fii ci dëkk bi di dëkk bu sell nga xam dëkk Tuubaa bi suñ sëñ bi sanc ko waxit ni mu bëggoon mu mel ne ak yu bare bari yoo xam wax na ko ci Matlabul Fawzayni tasaare ko ci looloo lépp nag kon day tegtal ne taalibe ñoom lañ seen warteef la ñu war a jëmmal li nga xam ne moom la sëñ bi ñaan ci Matlabul Fawzayni léeg-léeg nag suñ benn benn taalibe yu xiir da ngay dégg ñu ne sëñ bi ñaan na ko ba noppi kon daa ba noppi jàpp nañ sëñ bi nag amul jotu ñaan loo xam dafa am ba noppi ñaan ku nekk xam na ne li muy tekki mooy la nga bëgg moom te amagul moom ngay ñaan suñu borom defal la ko kon foo gisee mu wax wàcc al nangam defal nangam ci dëkk bi di jàppal ne ñaan la goo xam ne ni taalibe yi nag la koy jëmmal nag taalibe yi ñoom la war ak ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi di tuubal mahrusa sant baax kuréel gi nga xamne ni xeyna ci walu ay at seen at wu lol waye ñu takk xasaay tudde seen bopp kuréelu liggéeyal ku tedd gi liggéeyal ku tedd gi nak di war wu yaatu wo xamne ni ku nekk man nga jé jital war bu defee bo baye mam set ku nekk baye sa war rek waru dal set ñom nak ñu yëngu ci yu am solo sutra wat na ci weeru safar bi def ay jongante yu mel ne jangalim señ sëñ mi di ci soññi xale yi ñu koy xam di ko dégg ñu leen ci defal ay jongante di leen jox ay neexal def ay jataay yeete di ko teeroo màggalu safar di fukki fan ak juróom-ñett safar muy solo loo xam ñoo ngi soññi bokk yëpp surtout na ñi nga xam ñoo toll ci war a jël ndono li ndax ndono li tam li tax suñu xel dal ci mooy ñu gis ndaw ñi di ci yëngutu boo gisee ndaw ñi di ci yëngutu jàppal na ndono loolu am na ëllëg waaye ndono loo gis ay borom bi jaaw doo ngànk ko jàppale ndono loolu amul amul ëlëk motax dañu wax ne mbolo mu nek bokay xol bokay nat xol ko ci ña ngay seen ci biir su fekkee da ngaa xool ci biir seen borom bopp yu ñuul yu bari jàppal ne mbooloo mi am na avenir am na ëllëg su fekkee da ngaa xool nag seenoo ci lu borom bopp yu wax daal jàppal ne mbooloo moomee ak dundam la ci des bareetul kon nag ndaw ñu war nañu gën a soññi ñu war a gën a xam tam nag sëñ bi lan la doon jàngale ak lan la doon bëgg ak lan la doon bañ moytu tam woote yu bari yi nga xam ne ni mi ngi fëkk ndaw ñu bare bari di leen dugal ci beneen xeetu jangaleen boo xam dañ koy tuddé señ bi te bo duggé ba ca bir do ca gis dara señ bi señ bi teeloon naa xam ne képp ku ngeen andal na ngeen ko testé melni dañ ko laaj ni ñi testé nit mu ne ngeen testé nit yomb na ko bëgg testé xol ko ci ndigal suñu borom ak tere yi su fekkee gis nga muy jëfé ndigal suñu borom yépp di bayyi tere yépp lam ca man mu koy bayyi lépp ndigal yépp mu koy jëfé waye gisoko muy def lén lu suñu borom tere jàppal né kooku nit ku baax la ku ñu wara top lu waye nak so gisé lén lu yalla digle mo nopp man ko def mo nopp bañ ko def wala nga gis lenn lu yàlla tere mu koy def nee na donte da nga ko gis muy frenkalaayu ci kaw jaww ji jàppal na ay pexe la waaye du yàlla loolu nag ndaw ñu baree bari war cee gën a yeewu war a xamaat ne sëñ bi buñ ko bëggee xam nañ dellu ci mbindam lim bind bàyyi ko fi ak mag ñi nga xam ne yar na leen ñu gëstuwaat seen jaar-jaar bu ko defee jéem caa niitu ngir ñoom xam ñoom fi ñuy teg seen tànk kon loolu ab soññee bu ñuy def ci ku gi nga xam ñoo tuddi seen bopp liggéeyal ku tedd gi di leen ñaan suñu borom defal leen tawfiq تلامي عليها دين إخدام نعمتي وإخدامه أنقى ضلالي ووصمتي